lu njaay ak rek njënd ak itam lu jëm ci wàllum xëy maanaam rek di ministre of trade and employment euh, Baboucar Diouf moom nag démb ci euh, altine ji daal dina rek xamle ne euh, daal dina lim comme turi compagnie yi nga xam ne rek moom la nguur gi daal di jox ab këyit maanaam rek lañ seen ngir ñu mën a rek daal di tànn liggéeykat yu jógee ci réew mi file nag ngir ñu yóbbu leen foofee nag ca Spain maanaam lu jëm ci wàllum recru recruitment bi ñi nga xam ne rek ñooy compagnie yu ko war a daal di rek amal ci diggante nangutoo bi nga xam ne rek réewum Spain am na ko ak Gambie ci wàllu migrant work agreement euh, ci nooy nag euh, jëm ci wàllu euh, migrant work agreement boobu nag Gambien si nga xam loolu dafay tax Gambien ci muy rek réew mi di daal di rek mën a tukki foofee nag ca ci luy jëm tukki nag tukki liggéey lay doon ca réew ma foofee jox leen itam nag ab app boo xam ne des ko fay amal laata ñuy dellusiwaat ci réew mi file comme agreement bu mel noonu wala nangutoo gu niroo ak boobu lañ amal seen diggante ak nag Saudi Arabia ngiru nag Spain gi ak réewum Gambia kilifa yi ñoom ñëpp nag lu ñu gëm nag mooy ci euh, boobule. Euh, agreement nga xam ne rek amal nañu ko dina daal di tax ñu mën a rek xeex euh, wala wàññi sax lu jëm ci wàll li nga xam ne rek mooy wàllu mbëkk mi muy illegal euh, migration ñi nga xam ne léeg-léeg dañuy jëfandikoo li nga xam ne mooy gaal yi wala ci yeneen jumtukaay ngir dugg ci réew yooyu ñu sukkandikoo ba tey nag ci jëwriñ ji di ministre Diouf moom ci boppam nag daal dina xamle yooyu la compagnie nga xam ne ñoom lañ rek daal di leen si ngir ñu def li nga xam ne mooy recruitment bi maanaam rek tànn gi bokk na rek ci ñi nga xam ne mooy help them in the Gambia ak itam nag cruship Crew Gambia Gam Jobs Limited ak uh, Tokki Recruitment Agency Workmax Africa uh, Limited uh, ñoom itam ci leen bokk ak Outsource Recruitment Agency nga am itam nag Mbay Consulting Agency yooyu leen ak compagnie la ñu rek daal di tànn ngir ñoom ñooy def lu jëm ci tànn boobe ñi nga xam ne nag ñooy jëm fii Euh, ci Spain ngir rek amal foofee nag euh, liggéey euh, moom jëwriñ ji ci boppam nag daal di xam ne nag yooyu la compagnie ci seen bopp sax ñoom la ñu daal di itam tegaat li nga xam ne rek mooy boobule rek taxe ngir ñu di recru amal li nga xam ne rek mooy recruitment process maanaam tànn gi ci lu jëm rek ci gambeen si nga xam ne soxla nañoo rek dem fi nga xamee ni mooy ci réewum Saudi Arabia ngir rek daal di amal li nga xam ne rek moo di ab liggéey ca foofee muy niro itam nag nangutoo gi ñu am ak tam réewum Spain ci nooy nag nag nee na sélection yi euh, tànneef bi ni muy rek daal di demee muy la jëm ci sélection euh, criteria yi euh, moom ministre bi ci boppam nag nee na ñi nga xam ne ñoo bëgg rek dem candidate bu ci nekk muy ci ñu bëgg a dem rek faaw rek ñu am li nga xam ne rek mooy matuwaay bi bokk na nag ci skills yi nga xam ne waras nañ ko am ci lu jëm rek ci ab métier bi nga xam ne moom lañu rekk soxla foofee bokk na itam nag ne faaw itam nag nga doon ab rek doomu réew mi te itam teg ci amuloo benn jafe ak yoon maanaam rek criminal record amuloo ko teg ci itam faaw nga am li nga xam ne rek moo di jàlluwaax bu réew mi maanaam Gambian passport teg ci itam faaw. kooku nag euh, nekk ci euh, wér-gu yaram itam dinañ ko xool faw mu nekk ci ab euh, wér gu rek baax maanaam rek good health ngir rek itam ñu mënees ko daal tànn laaj nañ ko itam nag lu jëm ci xeetu liggéey yes lañ di liggéey foofee moom nag nee na les leen fay xaar nag ca Spain moom ministre Diouf nee na daal mooy lu jëm ci wàllu mbay muy rek agriculture farm work maalum mbay daal la ñuy daal di liggéey bu ñu yeggee foofee moom ministre bi itam daal di xam ne nag moom ci boppam ci weer wu ñu dëgmal dina rek. daal di dem fi nga xam ne nag uh, moo di ca Spain ànd ak ñi nga xam ne ni uh, ñooy ab team boo xam ne fii la ñu jógee ngir mu dem saytu lu jëm rek ci wàllu dallu geeg yu ci mel noonu maanaam accommodation ak itam nag. Uh, yooyu migrant workers bu ñu rek yegg see foofe nes lañ leen di téye ak seen wàllum nekkin.